يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله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 واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وكثر به بعد القله واغنى به بعد العيله ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعمة قولي لك الحمد فلا حمد إلا أن تمن بنعمة تعالى لا يقوى على حمدك العبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatuhu mbokk jullit fi bokk dajé ma ngi len di nuyu yeen ñep ci seen tour ak seen sant di len ndokkale ci jotaay bi dé di len balu xaq tam ci yëkkati kaddu ci kanam woote na ay kilifa waaye ay nit ñu baax waaye ay sangu waaye ñoo xam ne li nu war mooy ñu toog ci seen suuf seen ron ñi duñu xamal ñu ngi ci jéggalu bu baax te di ci joxe ngànt di ci sant yàlla itam comme ni ko kilifa yi waxe rawatina al imam abdullahi caam ak al euh, imam wala al ustaz euh, seydi moustapha si ci sant yàlla bu ñuy sant yàlla ci delsiwaat ci jotaay bi te nekkul ci suñu njàmbaar waaye yàlla subhanahu wa taala rek moo nu ko yenkewal ndax bés bu dañu dem dëj bés bu dañu dem dëj del si waat tëdd suñuy lal nelaw kon bu nu yàlla wërsëgalee daaw ba ren ñuy dem di seeti ñu feebar bal sax yenn saa ñu seeti nit ci kaso wala sax ñu dem tiim nit ñu di ko denc te kooku ñun ak moom ñoo bokkoon di dox wax dëgg yàlla bu ñu teewee fii te sant ñu yàlla ci loolu goree di loolu boobaa ñu dugg rek ci wa qalilun min ibadiya shakur benen bi tam ñu dugg ci wa ma qadara allah xaqa qadri bu ko defé ñuy sant yalla bu baaxa baax di nuyu kom fi ñepp jaar rek ñi nga xamni ñoy ñooy yoonu bi sallallahu alayhi wa sallam di len di ndokkel di len wax bismillah ci seen biir kër ci seen biir joxay ndax itam at mu nekk ñokay bok te itam muy wéy di rafet lool Cheikh Baye yaa ngi lay siyaare bu baax sëriñ ñu ngi leen ziar bu baax a baax waaye di ko wër di ko maasale ci mboolem ahlu bayti rasul waaye di ziare koo xam ne jàpp nañ ni buñ ko tuddee tudd keneen rek daañu mën a làmp ñi nga xam ne ñoo nekk jotaay bi yëpp comme ni ko Cheikh Mawlaay waxee sànq suñu kilifa suñu imam ratib mi ngi nii toog ci suñu wet muy imam Mor ñu ngi koy nuyu di ziar diko di wax bismillah di wax marhaban di bëgg lool ci teewaayam ci jotaay bi nde mom teewaayam dafa am lu bëri lu muy làmm ngir coonoom gu muy daj ci jaami yalla yi taxawaayam bu am solo bërki dem rek lañu and fi dem ci soppee Xadija wax dëgg yalla imam Muhsin bima ma ba wax ko teranga ya fa am dafa ni ya ah, mënu nga ma wo téléphone ñu ñu dem ba loolu moom raw na ay misri yu imam Mor dafa baax allah ñu koy ñaanal yàlla guddal kanam lool bu yàgg sunu kanam njaay bi jarul nga may xoos man dama wax ci dara di gërëm ki nga xam sama xalifa di sama Mak, di sama bàyyi imam Hasan Diop ma ngi koy delloo bi yëpp di ko delloo bi di itam rafetlu taxawayam ak wettal gi mu tok di nu wéttali ni ko nonu mbollem ñi nga xamni ne ak ñom ko melni ni Souleymane Diallo ñoom Cheikh jabi Cheikh Toy sha allah ak mbollem ñi nga xamante ne rek ñi ngi fi euh, di sante ak di gërëm bu baaxa baax ki nga xamne ne man may mom rek al imam Muhsin gis nga li mu man ken sañ ko ma ngi commencé mu ni ma joxal Cheikh Yaqou <laughs> to sañu ma koo bañ kat sañu ko ndax loolu la doon ci man loolu la sañ ci man macha allah imam Muhsin ñu koy siyaare bu baax di ko wax ni di wax ni moom lu mu wax maa ko wax lu ma waxit moo ko wax loolu la yàlla boole di gërëm sunu bàyyi bi nga xam ne moom it kenn la ci ñun muy Chérif Dia di ahlul quran di saaxibul quran di koo xam ne dafa liggéeyal alquran ci dundam yëpp sama xale yi mas nañu dem ci moom di ko interviewé pour mu wax leen ci macha allahu alquran mais vidéo bobu kenn du ci ma sha allah mu waxtu lu yéeme yéeme moom aussi ñi koy sant bu baax di ko di gërëm nag mbooleem kilifa yi fi nek borom xam-xam yi ku lim do do do jéxal Cheikh Omar Sakho mi ngi sama wet di gërëm suñu bay bi nga xamante ne sa sëñ am sa fi ñaan mom da dama ñu yobale ñu bare da dama ñu yobale itam suñu waajur wi imam do wax sank nga xamanteni ma sha allah goor gi jallo liggéey na l'islam taxawuna l'islam taxawuna eh, askan wi ba génn àdduna jot mu génn àdduna ci mu rafet ñu taxawu ko taxawaay bu rafet yàlla yàlla jéggal ko yàlla yàlla yërëm ko lépp lu nu am fi di rek yàlla ci sëddu ba doyal ndax itam wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi kon nag moom bu fexee ba bàyyee noo koo xam ne wala njaboot koo xam ne mën nañoo xool ci ñoom kon loolu war nañ sant yàlla bu baax comme loolu Seydina Ousmane ak mboolem àndu ndawle am na ndaw la nag seen nuyoo yëpp dama koy def ci loxo Habib macha allah sëñ Habib ndax dafa doon dafa doon koo xam ni rata xalam sama diggante ak dafa dafa jéggi dayoo macha allah maa ko ciy ziyaara bu baax a baax di ziyaara nag mbokki daaru yëpp ndax xam ngeen ni bu fekkee bëgg naa lim kenn ku nekk li ma séq ak yow yaakaar naa dama fi jóg waaye mbokki daaru yëpp maa ngi leen di ziyaare mbokk Medina yëpp maa ngi leen di ziyaare di rafetlu jotaay bi fi may sama kàddu mooy wax jeex wax jeex waxin rek moo des waxin waaye bu fekkee wax moom fii luñ fi waroon wax rek wax nañ ko ba luñ fi waroon wax rek wax nañ ko ba xam nga maa ngi jéggalu di nuyu sëñ Bachir si nga xamante ni nuyoo bi yëpp dafa waroon a ci moom doo ko dem ci keneen ndax daaw fii dañ ko bokkoon macha allah mu rafet lool moo tax bi ma ko gisee rek maa ngi naan que imam suñu imam moor mi ngi lay ziar ko wax imam macha allah seen relation ni ñu ko relaté fekk boobu maa ngi taxaw di dégg imam Mor macha allah. borom xam-xam bi dafa ni wa mimma zaadani sharafan wa tiihan wa mimma zaadani sharafan wa tiihan wa kittu bi axmusi ata usuraya duxuuli duxuuli taxta qawlika yaa ibaadi وأن صيرت أحمد لي نبيا mu nekk wax ju kawe kawe kawe mu ni su fekkoon man damay bég di kontaan di am sharaf nit mën na bég sànq oustaz yaakaar naa ni wala docteur Mouhamadul Moustapha bi Moustapha si dafa ni léeg-léeg di nga gis ci mudaaharaat yi am muy nit ñi bu ñu joggé di jambat seen yende ci dëkk bi léeg-léeg nga fëgg bokk doomu adama diko lutax lu la mu yaq ba pare nga diko lutax mu def ni waye du la mëna tontu waye léeg-léeg nit tamit bëgg borom xam-xam yi dañ doon wax na nit ñaar woon na koy moytu mer bu ëpp wala kontaan bu ëpp ndax léeg-léeg do mëna téyé sa bokk ba def lo ba def lo warul def doo ko mën doo mën a téye sa bopp xam-xam bi dafa ni wa mimma zaadani sharafan wa tiha li man li may bégloo ma sigiraloo di tax may manifester sama mbégte kon moom li muy wax dafa mel ni am na teguwaay su doon question la buñ ko laaj mu ni daanaka sax su ma tëbee wakittu bi ax mu si ata u turaya daanaka bu ma tëbee sax day mel ni biddiwu turaya sama loxo daf koy laal ñu ne ko ay ah, yow de li nga dégloo rëy na ndax léeg-léeg nga jékki-jékki gis nit di rey fekk rey yi amul njëriñ wala mbégte mi amul njëriñ ñu ni ko lan la mu ni li yàlla wax ci alquran subhanahu wa taala duxuli man yàlla boole ma ci ñi mu wax taxta qawlika yaa ibaadi yàlla subhanahu wa taala naan yaa ibaadi yaa ibaadi wala qul yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله لولو باتو باتو عبد نيولتي سبحان الذي أسرى بعبده وفتمي باتو عبد نيولتي شرف بوغو نيو أم أم موي أم شانس أكسبتي لي دون في سوني بوروم سبحانه وتعالى موي جام دا مام شيخ سيد الحاج مالي رضي الله عنه نكو سي بن بيي دا مقام العبد مقام العبد ذل وامتهان تزلل كيف جالس يا زليل من النب تد نبو من أم كي أدنا من دون تد نلول لن نك جان خلق تولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يالا دي واخ مومنا سبحان الذي أسرى بعبده واو كون بنين كاليفيكاسيون بان نيت بغ ني تاكال ني تاكال كوكو لودو yalla yàlla xajoowuñu dara ci nek ci kanam ak luddul jàmm wa dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa loolu dañ ko bokk bi di sante yalla te dajé bi ñu fi dajé amul lu ko melal man léeg-léeg damay jekki jekki gis nit di wone appartenance appartenance moy lan di wone fi la bokk ci tariqa xëy na lu ñu waroon béral la waye li gënon ëpp importance pour ñu birul ko saxal ko dëggal ko moy lan ni est-ce que ñun ay julit lañ ba fay loolu moy importance doomu aadama moo tax maa ngi degg fan yene sama benn mak Cheikh mohammedul Habib si yalla yalla yàlla ko bu serigne Babacar si Mansour yalla yalla yàlla guddal fanam muni nañu delo si wat xel yi bala ñuy jangalat nit ñi tay sir bi maam Xaaji Malick bind nañ leen jàngal alquran parce que tey siir kenn du ko jullee waaw kenn du fatiha doo ko tere doo ko doo ko tari ba pare teg ci alhamdulilahi li tey siir yallaahu waaw loolu moo tax man dama jàpp ni société bi ngir jéem a résumé li suñu mbokk yu tedd yi doon wax li ñu ñëkk gën a war a ni ñu war a gën a bàyyiwaat xel moy ñu xamni ni jullit bi dafa am ay devoir dafa am yuko yuko war gannaaw bu mu jébelo ndax ni nga jébelo subhanahu wa taala yàlla dimbali la bis biñ lay gënte ndax ñun ñëpp dañu judd ci fitra waaw yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith fa abawaahu waaw yu aw yunassirani aw yumajjisani kon ñëpp jullit lañu ñu woon waaw lu jiitu ñuy ñuy gane àdduna te am na sax lu ko jiitu subhaanahu wa taala yonent bi sallam jàngal nañu ko nit liñ lay fekkee ci sa biiru yaay nga xamante ni malaayika la yàlla di di di yónni nga xam ni ko boobu yaa ngi tolloon ci alaqa lu jiitu mudora lu jiitu rama loolu lépp nekk ay kii yàlla ni ko soo demee kii de ne ko dina dafay dafay texe wala day texee di appam fii lay tàmbali fii lay yem loolu lépp am na donte la jiitu woon na waaye baax na itam ñun nu ñuy déggoo suñu kilifa yi ñu xam suñu kilifa yi li ñu am lan moo leen ko may lan moo leen ko may sharaf wala wala ci wàllu nasab déedéet mayu leen ko li leen ko may dëgg-dëgg mooy seen góorgóorlu ba yàlla xam ni ñi jàmbaar góorgóorlu sama papa dafay faral di wax sama waajur Mouhamadou Mansour Abdoulaye yàlla na yàlla guddal faram nee na moom gëmul ku naan góor nee na ndax soo nee góorgóorlu di ngeen di jigéen jigéen lu mais danaan jàmbaar jàmbaar lu moom jàmbaar jàmbaar lu li ñu utilisé ci terme moom suñu islam nekk ci ñun bu xam taxawaayam ci biir société na dellu wax ni islam code de procédure la code de lépp lu nit di def rek dana la wan ban yoon koy jaar islam manuel de procédure parce que kenn ku nekk moo lay wax fii la say prérogative tàmbali fii islam constitution parce que lepp lu ñuy def buñ ko deful ci peggu islam defil ga baaxul lepp lu ñuy def buñ ko deful ci peggu islam la ñuy def baaxul islam code pénal la parce que lepp li nga xamanteni ñu koy dund sanction yi islam prévoir naka lenn lu nekk lañ ca war a def wax de la famille la yi nga xamante ni moo traité ci wàllu kër yëpp islam da koy traité benn par benn ba ci bi gën a jafe muy la question de l'héritage nga xamante ni affaire u alal la te alal source de conflit la islam daf ko traité benn par benn détail par détail donc ñoo yor li gën ngëneel nag position la position xam nga yàlla bu ne wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayri kooku position la bi nga xamante ni nit da koy taxawee ngir mën a digle lu baax boo eggul ci position boobu mënoo digle lu baax wala kooku digal du la wuñ beneen ba aussi bu fekkee da ngay digle lu baax te doo ko def kenn du la ci wuñ benn borom xam-xam dafa wax bi mu duggee ci islam mu ne maa ngi sant yàlla di ma xamee islam lu jiitu may xam jullit ji parce que su ma njëkkoon xam julli ji du ma xam islam inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yàlla nee na dispositif bi soppi réew nit ñee koy tëralal seen bopp man yàlla wàcc naa yëpp wa aataakum min kulli ma saaltumu lépp luy tax ngeen mën a baax ngeen mën a évoluer lu tax ngeen mën a avancer jox naa leen ka wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha su ma xéewal yi ma leen jox bu ngeen ko doon wàññi du ngeen ko mun kon man yàlla wàcc naa yéen li ma dese ak yéen mooy li ma leen jox ngeen jëfandikoo ko ni ngeen ko war a jëfandikoo ngir fi ngeen bëgg yegg ngeen yegg fa mais développement du lu ñuy décréter de le progrès social ça ne se décrète pas sa se construit. gis nga ñii waxtu wooy ñëw ci ñoom dangay ngay solo ba jël sa mbaxane mbaxane mbuur sa couronne teg ci sa bopp moo tax ñu jox ñu jox la cër bi ñu la jox waaye gis nga sa soxna si bu fekkee moom nga bëgg jox la mu jox la cër. bu ci sonn ndax moom boo dem ci moom dangay ngay perexlaay xaw ma dégg nañ ma am dégg waaw ndax moom bi muy def loolu goro yi dafa bëggoon soxna si gën ko jox cër daj bi ni ko yeewil sa goro yi ñu dem parce que sa sa soxna lii du tax mu jox na cër ndax booy dem ci moom da ngay perexlaayu te ñii ngay raamloo booy ñëw ci ñoom li tax ñu jox la cër ba nga raamloo leen ñuy raam booy dem ci ñoom da ngay ràng ba mel na nga war a mel kon gis nga doomu aadama ràññee bi ken islam di jox te mu cher lo xam ne dara dara dara dara mënul wecc islam ci doomu aadama mo koy def nit mo koy cheral manam nit ni ko sëriñ waxee léegi wala qad katamna bani adam deug la waaye nak fadl bi nga xam moy tax nit gën moroomam kok mom ci gëm yalla lay amé wan al fadl bi yadillah yutihi may yasha kon li nga mom la islam di jox dafa cher ba mu mel ni amul dara loo xam ne mën na ko mën na ko wecc yàlla subhaanahu wa taala mi ngi koy wax ci Quraysh di leen di ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata ash-shitaa'i wa sayf falya'budu rabba haadha al-bayt alladi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf maanaam ñaari ñu soxla muy sécurité parce que bu ñu côté social dañuy wax sécurité ndax sécu ndax sécurité bu amul dara amul mais sécurité tamit dafay am sécurité alimentaire yàlla ne ñaar yooyu yëpp maa ko jox Quraysh kon nag dañu jaamu borom néeg bii gis nga islam ron ne islam ni mu seere mu leen fal ya'budu rabba haadal bayt alladi at'amahum min juu'in wa aamanahum min kon seeraa yi lim ñu jox dafa jéggi dayoo yàlla santaan ñu azaka ni li ngeen am bu mu yem ci yéen moo tax li ñuy wax xurubu ahlu ridda ci aboubacar xilaafa aboubacar mu yéeme lool ndax dañ ni dootuñu jox gaa yi alal ci ñu daan jox yontu bi yontu bi dañ daan jox am na sax ñuy jullee tuma Masalik ndeysaan bu ci développé ci développé développement bu rëy rëy ñoo xam ne dem nañ bëri sax jullee tuma bi sallallahu alayhi wasallam mais am ñu joxee tuma azaka parce que yonent bi problème mooy Abu Bakar bi mu nee dafay xare ak ñoom Omar àgg na ci ni ko naka ngay xeexee ñuy wax laa ilaha illa allah parce que mbir mi dafa yéeme ndax ñoo xam ne ñi ngi xeex ñi ngi ñi ngi ñi ngi julli ñi ngi def leneen leneen mais joxewul azaka loolu ci pexe mo ni ko gis nga boom biñ dan daan gatti diko def di ko jox buñ ko te buñ mako ko ma xeex ak ñoom xeex ak ñoom kon loolu la lay jangal moy islam dafa taxaw ci social yalla ya koy jullil yow kese mën nga dugg ci sa biir ne julli ko julli ko de ngeen li euh, imam da dox sank motax kafara kafaara fu mu ñëwee mu laaj ana li ngay joxe nga delloo waat ci loxo nit ma ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp ci gën gaa nuyu maa ngi leen di nuyu ci nuyu gaañu aljana yi ñi fi wat si tànt bi tey yàlla nañu bokk si ñooñee muy assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu may dalal nuyu mbooleemi imaam mbooleemi aima ak asaatis yi nga xamante ni nañu ci woote bi may jiital si nuyoo boobu surafa yi nga xamante ni ñoom teew si fii may nuyu itam sang yi nga xamante borom bi subhanahu wa moo leen jagleel ñu bokk doon ay dogit ci ñi nga xamante ni Sénégal yëpp leen di tiitaroo moo xam dañoo bokk ci kër Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu si ku mel ni Cheikh Abdou Mbacke mi fi teew si sang di seet si sëñ Fallou Mbacké waaye tey dama bëggoon jaral nuyoo sama xarit sama soppe sama soppe laay gën a wax muy tan muy imam muy sëriñ Bachir Sy bu sëñ Abdou Mansour Sy Dabakh bu sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh bu Seydi Hadji Malick Sy ridwanullahi alayhim waaye su ma ko nuyoo kon niñ ko defee xaw ma bàyyi xel sama magu bopp bi nga xamante ni muy Sidi Ahmed Samb bi ñuy xamee léegi ay xaleel lañu woon ëpp na 15 ans wala daanaka 20 ci suñu xamee léegi soo ko dindee si suñuy at li ciy des bu bëri moom ñi nga xamante ni waral loolu ah. di ak jagleel nuyoo conférencier yi nga xamante ni ñoo fi def waxtaan bu am solo bi nga xamante ni def nañ ko fii muy professeur suñu mag Moustapha Sy di suñu xarit suñu soppee imam Ibrahima Diop waaye su ma leen tuddee itam dinaa bàyyi xel ne modérateur sama xarit bopp boobu nga xamante ni suñu diggante itam comme li ak Sidi Ahmed Sam du tey démb la ñuy Alxaaji Abdoulaye Thiam waaye ndax sañ naa nuyoo ba noppi te bàyyiwuma xel jagleelu ma nuyoo ki nga xamante ni muy organisateur organisateur yëpp laa bëgg wax muy maître de bi ak ñi ci àndal ñëpp ci waa ànd nawle nga xamante ni ci coordination wu Insa Ndiaye ñooy bés bi depuis lors mais am naa contentement ci ne bi ma fiy ñëw ma agsi ci tente bi ci ne bi may jóg di def lu mel nii ma am jàppandal li nga xamante ni mooy sama mbokki bopp ndax su fekkoon ne yombalal mu mbir mi dina jafe dina jafe ñu ko taxawee sama nijaay Seydou Sow jël kàddu ci seen tur sama papa Arouna Diallo nekk fii sama nijaay Omar Sow waaye sama turandoo di sama xaritu bopp di sama conseiller di sama papa Ousmane Mbacké moom it mu ñëw ak mboolee ni samay mag jarul ma leen di tudd waaye bés bii tey su fekkee ne amal nañ ko dafa fekk ne dafa am lu ci jàpp lu ci jàpp mooy mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi te kilifa yi nekk ci dëkk bi ñu ne ñu wër tudd te nañu ci ñooñu monsieur le maire de Saint-Louis Amadou Mansour Faye nga xamante ni Lamine ak adjoint au maire di sama papa di sama conseiller moom it moo ko teewal ko fi toog fii ci jataay bu yàgg ci suba ba léegi maa koy tooñ naan ko bi sa bés la ci tàmbali fan leen édition bi ba yaa ngi ci jàngkat ak tàggkatu yonent bi alayhi salaam nga xamante ci wàll bu ñu mënti bokk ma leen di di leen beral nuyu bi samay xaritu bopp ñuy weccoo xalaat ci yu bëri bés bi suy taxaw li ci ëpp dama yëkkati sama téléphone woo leen moo xam sëñ Maguette Fall la moo xam sëñ Bara Sow moo xam sëñ Cheikh Ndiaye ak mbooleem yi nga xamante ni yóbbu nañ ci ñoom Adama Diaw ku ne su ma la tuddee ci wàll gi nga nekk yóbbaale lañ ci des waaye nekkul ne dama leen fàtte Moulaye man lay jaajëfal nuyoo yow ak ci ànd nawle yëpp tey liñ fi dajale woon mooy li nga xamante ne ci biñ koy yëkkati dañoo ne lii dañ koy jël mu doon rattaxal diggante Daaru ak Medina Marmiyan mu doon ñi nga xamante ni ñu rek ne suñu mbiru bopp la suñ ko defoon suñu mbiru bopp defe naa ni jamono liñ toll ci wàllu tiis mënoon nañu leen di ko amal waaye seen jàppandal la seen liggéey la ku ne def ci teraanga boppam moo xam ci ku ne ci pàcc bi mu ne ma bañ a tudd waaye ku ne jël sa participation nii ci bâche ci ay xéewal ci chaise ci fauteuil ci lépp mënu ma la wax lu ne fan la jógee parce que lu ne loo koo xamante ni affaire yi ko ma leen di jaajëfal di jaajëfal waa Croix-Rouge di jaajëfal waa police di jaajëfal le préfet de Saint-Louis di jaajëfal mbooleem ñi nga xamante ni rek jàpp nañ ci samay xarit jóge fu ne ñëw fekkee si mbir mi di jaajëfal mbooleem ñu bokk itam ci ëttu police